rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki murit yi waa Touba Argentine ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di ci jiital Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamad Lamine Basir di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi lool ànd ak wér naka noonu Serigne Cheikh Fall jëmb di ñaanal bu baax a baax a baax Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke suñu borom yokki leeram di ñaanal bu baax mbooleem kilifa diine senegal waaye di ñaanal it kilifa aada yi. di wax mbokki jullit yi bu ngeen gisee toogaay bi xam ne am na lu ko waral lan moo waral toogaay bi mooy liggéeyub sëriñ Touba bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci réew mi ñu toll nag euh, ci cappaandaw gi muy war a dajale addiya ji yóbbul ko Serigne Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba te mote ko sëkk ñu toog nag ak euh, suñu jëwrin Serigne Mor Talla di jëwrinu fédération bi ak Serigne Maam Thierno Amar waaye toog ak Serigne Baye Cheikh Dieng xam naa nag euh, ci kanam tuuti rek danañ yëkkati kàddu yi jox ko ki nga xam ne mooy euh, sëriñ Baye Cheikh jenn euh, bu noppee dana jox Serigne Maam Thierno Amar waaye bu noppee dana jox Serigne Mor Talla Sall jëwrin mu wax ak mbooloo mi di wax rekk waa Touba Argentine liggéeyub sëriñ bi mi ngi nii liggéeyub sëriñ bi mu ngi ci seen loxo. waaye liggéeyub sëriñ bi jébbal nañ ko mbooleem dongo yi nga xam ne ñu ngi yeewoo fii ci réew mi te xam ne dama daan faral di wax euh, baat boo xam ne saa su ne bu ma nekkee ci jataay muy kàddu kàdduy soññee dama koy féddaliwaat muy ñaari soorool ya nga xam ne sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke def na ko ca tuubaa ñaari soorool yooyu ku ci sa dërëm demutoon dootu ca dem mm-hmm. li muy tegtale nag mooy murit bu ne fépp fu ñu woote ci sëriñ Touba bu la ca kenn jiitu ndax kuñ ne maa la gën a gëm sëriñ Touba nga jóg jàmmaarloog kooka kon nag bu ñuy jëf ci Serigne Touba bu la ca kenn jiitu ah murit nañ bàyyi góor yàlla yi fas te doo fas bu keroogee bu ñëpp yi tekki yow doo am lenn loo tekki te jëf ci Serigne Touba ci la murit yi rawante kon mbokk yi asalaamaaleykum wa ñu jox sëriñ Baye Cheikh Dieng. bisimilah barki borom Touba mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziare. di leen nuyu bu baax kenn ku nekk si turam ak santam di baalu ñëpp ak di leen balaax di ñaanal sëriñ mën tax Basiir mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mu yéene liggéeyal suñ tubaab mu am ci ndam lu kawe njortam di ko naka noonu di ko ñaanal suñ Cheikh Jëmm Fall ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp bu ngeen gisee ndaje bi wala waxtaan wi xam ni murit ak taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk ci Argentine ak li ko wër am na lu ñuy waajal. loolu nag ci euh, ndigalu jëwriñ sëñ Taala Sàll ak topp ca moom sëñ Bàmba waaye tamit jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di sëñ Assane Baye Fall jëwriñu organisation ak maam Thierno Amar loolu moo war waraloon daje bi daje bi nag du lenn lu dul àddiyee ji nga xamante ni moom la ñu daan dajale muy àllarbay sëñ Tuubaa yi ak guddi àjjuma yi sëñ Tuubaa yi ñu daan def ci dëkk bi àddiyee ji ñu ci daan dajale di ko jox Cheikh mun Mountakha année bu ne nga xam ni. Euh, ginnaaw tabaski lañ ko daan yóbbu waaye ren jii ni jamono demee euh, gisoon mbiru feebar beeg xat-xat yi amoon ci àdduna ak jamono jeeg tëju gi léegi nag ginnaaw yàlla dogal na mbir yaa ngi tàmbalee yoram suñ ko defal mu ngi ñuy defal tawféex looloo waral woote bi ñu bëgg képp koo xamante ni yaa ngi gis suñu woote wala ngay dégg suñu kàddu foo mën a nekk ci biir Argentine ak li ko wër moo xam nga bokk ci daayira moo xam bokkoo ci daay ci ci daayira fépp foo xamante ni mbooloo ñu nga fa rek lañ fa doon dajale ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ñu ngi sàkku balaa yàgg dara xëy na jëruñ Sëñ Taala ñoom bu ñëwee dinañ wax délai bi bu ko defee ñu mën a dajale loolu indi ko képp koo xamante ni da nga cee bëgg a barkeelu it ñu ngi leen di fàttali nii nga bokk ci daayira ak nga ñàkk bokk ci daayira murit bu nekk ci Argentine sas nañ la 1000 peso ngir ñu dajale ko ci li boole kook li nga xam ne moom la ñu dajale ngir mën koo yéet sëñ Muntaxa ndax kenn ku ne xam na ni Euh, li mu sumb bari na lool te euh, it maanaam amul kenn koo xamante ni mën na ko cee jàppale ginnaaw Sëriñ Tuubaa ku dul ñun taalibe yi kon kenn ku nekk ci ñun ñu ngi lay woo ci ndaje moom te it euh, addiye moom comme niñ ko ni ko suñu jàmbaar ji Sëriñ Saaliw daan waxe rek dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara fekk fu dara nekkit mu baril ko waaye fekk lu bari lool mu barkeel ko te yaakaar naa képp koo xam yaa ngi ci kaw suuf rek ñett yooyu rek nga bëgg te it sunu jàmbaar ji yaakaar naa bokk na ci li nga xamante ni ñett yi nga xamante ni doon na ci doon na ci soññee te bàyyi woon ko fi muy Touba li habdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi hubbin aw yi kon maanaam di ko liggéeyal ak bëgg gi waaye tamit joxe addiye ji ndax addiye dafa nekk ponk boo xamante ni dafa bokk ci ponk yoonu murit mënta kenn mënta dem bàyyi ko ab murit mënta dund sans addiya kon képp koo xam yaa ngi dégg suñu kàddu rek woote baa ngi noonu Euh, danañ joxe ay compte banque ak i mercado pago yoo xamante ni képp koo xam dangaa sori wala nga nekk foo xam ni mbooloo néewu fa wala daayira néewu fa te nga bëgg caa barkeelu boo ko dugalee foofu danañ ci jot boo ko defee mu doon addi joo xam moom la ñuy dajale at mi jët ko ci sëñ Muntaxa Basir muy addi waa Argentine ñu ngi ci woo mbokk taalib yëpp ñu ngi jéggalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sant Serigne Touba Xaadimu ak ëllëg di ñaanal sëriñ Mountakha al mu gën a yàgg lool gën a wér ba li mu yéene liggéeyal ku tedd mu def ko ni mu soobee ànd ko ak ñun ci barke xasida yi naka noonu di ko ñaan sëriñ Cheikh Jëm Fall di ko ñaan sëriñ Abbas ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi yëpp rek mboolem Cheikh sëriñ Touba yi di siyaar bu baax a baax mbooleem mbokki asante yëpp di ci jiital suñ jëwriñ sëñ Mortala min bokkal fii ak sëñ Baye Cheikh ak sëriñ Assane Baye Fall jëwriñ maam Cheikh Fall ak moom sëñ Bamba gaa yi ni ci biir fédération bi yëpp rek mun gisee jotaay bi daanaka kii du gudd moom ndax li sëñ Baye Cheikh sëñ Assane wax ko daanaka matale na sëkk mooy di soññee rek addiya ji nga xam ne moo jëm sëñ Muntaxa mbooleem fu daayira nekk rek di daayira sëriñ tuubaa ñu ngi sonni jëwriñ ji ak ñu topp ci moom lu fa nekk ci addiya joo xam ne sëriñ bee ko tax a jóg ñu andi ko ak mbooleem fu nit mën a nekk rek foo mën a nekk rek tey murit na nga xam comme ni ko sëñ Baye Cheikh waxee li la ca war muy 1000 peso ndax kat ñi ngi koy soññee soñña bi nag boo gisee mooy waxtu wa daanaka paas ne waaye xat-xat yi amoon moo tax daanaka mënuñu koo soññee waaye nag ñi ngi sàkku bépp murid bu ne ci dëkk mu fexe tàbbal ci ñaqam balaa addee jee dem ndax ñun addee rek mooy defar suñuy mbir kon nag ñi ngi soñ ñëpp bàyyiwuñ kenn daal muy góor muy jigéen muy mag ak muy fu waay mën a nekk rek boo déggee na nga xam ne mooy sa boote ñu def ci yitte bu baax ndax mënuñoo joxe lenn lu ëpp addee ji jëm sëñ Muntaxa ndax na ne képp ku jël sa jox ko sëñ Muntaxa def nga ko fa ko war a def kon nag ñi ngi soñ ñëpp bàyyiwul kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafil wa maulana mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli suñu sang sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifa sëriñ muhammadul muntaxa al mbakke suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba lim naal ci yoon wi yëpp suñu borom may ko wér kattan ba mu àggale ko ni nga ko bëgg ak mboolem taalibe yëpp di nuyu nag mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nekk ci réew mi yëpp nuyu bi ak jaar bi nag dañ ciy jiital rek suñu topp jëwriñ muy Serigne Bamba Niang di ci toftal suñu mbokki jëwriñ yi nga xam ne ñoom doon àndal liggéey bi muy Serigne Assane baay Fall di jëwriñu maam seex ak Serigne maam Thierno mi nga xam ne mooy jiite lépp loo xam dafa jëm ci liggéey bi ci organisation. ak Serigne Baye Cheikh Dieng mii tamit nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci njàngum xasida di nuyu mboolem mbokk yëpp kenn ku ne ci turam ak santam ginnaaw loolu nag comme ni ko mbokk yëpp waxee rek nga xam ni moom liggéey bi ku ne xam na ni luy maanaam lu daan am la lu daan dox la jëmoon ci lépp loo xam ne day dajale addiya ndax ku ne xam na ni fédération bi bokk na ci li ko tënk maanaam joxe addiya nga xam ne at mu jot dañ ko daan ànd daan ko def yàlla dogalit ren jii donte sax ci app bi ko war a def xaw na romb tuuti waaye nag loolu téewul rek ba léegi ñu ngi continuer di soññ mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yëpp ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne doo nekk ci réew yëpp fépp fu nekk maanaam na nga xam ne lii mooy soññe bi soññe bi nag mooy képp ku fu waay nekk rek maanaam lépp loo yor tam jëm ci Serigne Mouhamadou Mountakha mën nga ko indi dina am ay maire pa yoo xam ne danañ ko joxe incha allah buñuy buy jàll nga xam ne képp ku dégg rek loo yor mën nga koo dugal foofu liñ foofu tamit liñ ci dollet mooy bépp taalibe bu nekk maanaam sas nañ la mil peeso yoo xam ni war na la ci su ko defee kenn ku nekk fexe góorgóorlu ci baax a baax ndax ku ne xam na jamono fi mu toll sax waaye nag téewu rek Sëñ Tuubaa moom xamewul jamono ju neex ak jamono ju naqari moom li ko ñor dëgg-dëgg rek mooy diggante ma boromam ku ne xam ne ni murit maanaam addiya dafa bokk ci sarti ci sarti yi am dafa bokk ci yoon wi kon nag su ko defee ci loolu lañ leen di fàttali di ko fàttali suñu bopp ak mboolem jëwriñ yëpp ci réew mi nag maanaam fépp fu fi jëwriñ nekk rek kon na bàyyi xel loolu soññ ci mbooloom ndax buñ gis nañ ni bi biñ ko soññee léegi sax bari na ay daayira yoo xam ni indi nañ jot nañu indi seen i addiya waaye nag daayira yi nga xam ne jotagunoo ñëw ak mbokki taalibe yi nga xam tamit dañu ci bëgg a barkeelu kenn ku nekk 1000 maanaam ñooñu ñëpp lañ bokk di leen soññi kenn ku ci nekk bàyyi ko xel bu baax ba maanaam góorgóorlu ci bu baax baax ndax maanaam dañoo bëgg maanaam addiya ji gën a am solo dañoo bëgg mu gën a am solo yi jàll yëpp dañoo bëgg bii ëpp doole loolu sax moo waral soññe bi wax di yàlla bi ma ànd ak sama mbokki joriñ yi kenn ku nekk soññe ci soññe bu am solo moo tax it rek ñu bëgg fàttali ñëpp comme noonu rek bu ko defee kon xam naa dañuy gàttal foofu kàddu yi eh, def ñaan rek ba beneen yoon incha allah ko defee kon loolu noonu leen jottaleeg yéen di ko fàttalinteeg yéen leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ba léegi ñi ngi ak jëwriñ yi rek kenn ku ci nekk yëkkati na kàddu yi am solo. muy kàddu yoo xam ne rek dafa jëm ci addiye ji nga xam ne euh, mooy addiye sëriñ Muntaxa ji nga xam ne moom la ñuy dajale fii war ko ko yóbbul euh, ñu doon ci soññee euh, kon nag mbokk yi yéen a ko dëggandoo mbir maa ngi noonu seen mbir la di wax ne rek yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ bi ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa